wax na ci lu am solo ci làmb mais tey da sol may équipe nationale bu Sénégal. Mm-hmm. démb Sénégal football am ndam lu rëy. 2 3 1. mu nekk loo xamante ne mbégte la ci réew bi waaye fii nga toog bari na ci ay sëriñ soo xamante ne toog nañ ci waxtaan ci. Mm-hmm. ñii ne coupe bi mën naa ñëw ñii ne coupe bi mënul ñëw ñu ne daa am sax ñu nekk ci réew mi ñoo xamante ne vraiment dañuy xeex réew mi pour mu bañ a jël li nga xamante ne mooy coupe bi coupe d'Afrique indi ko ci réew mi. Mm-hmm. boo déggee loolu en tant que citoyen doomu réew mi ban gis-gis nga ci am. Euh, li may njëkkee mooy féliciter jeunes yi nga xam ni ñoom ñoo dem euh, entreneur bi am confiance ci ñoom. Mm-hmm. recruter pour ñu teewal raaya réew mi. Mm-hmm. fa ñu taxaw tey. ñu ngi fa taxawal toute nation. Mm-hmm. fa ñu taxaw tey ñu ngi téye yaakaaru dëkkub lëmm. Mm-hmm. te xam naa ni it yaakaar naa ni xam nañ impact bi ndax dégg naa discours jàllo bi démb bi victoire bi amee. Mm-hmm. dama xam ni ils sont dans le bain. macha allah. donc kon loolu moo am importance. man nag gis-gis bi ma ci am ak gis-gis bi ci nit ñi bokkul. man dama jàpp di la récompense est au bout mooy euh, coono mooy indi résultat. dëgg la coono nag bu raxul dara sans mm-hmm. moo tax mystique beeg yeneen yëpp man joxuma ko valeur li ma jox valeur mooy xam naa ne bu doon mystique kese mooy tax nit réussir wala nit am li mu bëgg Afrique. Mm-hmm. soo ñëwee ci rond yi xale yi ay coupe coupe d'Afrique la ñuy fooy ak coupe du monde. Mm-hmm. kon c'est pas ça l'essentiel charlatan yi ciy wax nag c'est du bonne guerre business la jiil sénégalais nga il faut apprendre à vivre dans ce pays mooy bokk ci coow li xam li waral coow lee ko gën. Hmm. mën a waaxu it xam réew mi ko gën. Hmm. dafa am ñoo xam ne ay charlatan lañ dañuy profité ci ay moment ak ay situation pari foot la rek. Hmm. équipe bi day gagné ak day toog. mais mun na tombe ndax bu toogul day gagné rek boo waxee benn l'un des deux mun na tombe kon moo gisee sëriñ yi foo sëriñ yeeg charlatan yi di ci wax parce que dañuy profité ci moment yooyu parce que moment yooyu ci la Sénégalais di am attente ci ñoom di déglu képp ku wax ci équipe bi rek moment boobu dañu lay déglu. Mhm. léegi nag ci moment yooyu la ñuy profité di promouvoir léegi nag dañuy def gañ ou perte des fois ñu wax mu tombe seen kër ñu koy rang Selbé Ndom lu ko may ndam Paris foot Selbé Ndom moo gën a xanaa xamoon naar bii di Paris foot sal Ndom moo ko dàq moo ko dàq see Selbé Ndom day Paris foot mu ngi mel ni nga dem rek si naar bi. xanaa xamoo yow ñuy ne bu doon xam-xam dëgg ñaam ñuy ñuy jàpp tari pari foot ñoo ëpp xam-xam Sénégal. mais match boo fekkeewul fi ñu ko préparé match boo fekkeewul classement bi nga di diwee gañe. diw mooy dugal première mi-temps. <laughs> laay des fois nga ni trois bii di la am trois bii am te Serigne si léegi li ma ci gën a jaaxal da ngay gis Serigne su génn na équipe nationale du dem quart finale am na koo xamante ne chaque jour ma nga TikTok mais lan lay wax waa koñ ba lan. lan la leen wax bu demee jàkkaarloo waa koñ ba te moom moo waxoon du def quart da finale lan la leen wax. yàlla nañu yàlla yërëm. ñu ñun Sénégal dañoo bëgg ko ñu ndax. boo yisee fari foot man am naa ci boo yoo xam ne barki Serigne Bamba ñooñu dama naan est-ce que ñoo ñoo am xam-xam. Ah. mas naan diw mooy dugal. dëgg la dem naar bi fay leen. Ah. mais xanaa kon ñooñu dañoo am xam-xam. Mm-hmm. parce que yi ñuy déglu. Mm. loolu la def nii dañuy toog ne. duñ sax wax di way dugal dañ naan Sénégal dina dem wala du dem mais Sénégal bu demul day dem maa bu ñaar moo ci am day dem baa mu ñu baa mu baa mu bañ a dem. Hmm. léegi soo nee day dem yàlla dogal mu dem. Hmm. ñu ne am nga xam-xam. waxoon naa <laughs> te man li ma jaaxal mooy Serigne si naan équipe nationale bi dina génn match de poule wala dina def bu équipe bi génnee ñoom ñoo koy njëkk a jël def ko seen page TikTok wala di ko staté pour sénégalais yi xam ni waxoon nga ko te boo waxee lu safaan wa doo nangoo génn. gis nga taxaw wane booy yi di gagné ci pari foot bi. gis naa ñu ci gagné sax bay dawal oto suñ doon publier li ñuy def. Mhm. woote sëriñ ñu wuy si leen bu dee wax mu tombé rek mooy tax a mais gars yi dañu yor ay laar yor ay sengoor ràngoo ko taxaw xuuxal gars yi. ay charlatan la ñu xam nga charlatan. déedéet xam nga tey Sénégal di football nga xool ni Sénégal kat lu ci ëpp demi-finale la ñuy toogee. Mm-hmm. te Sénégal sax ñoo yey ne kooku wax du génn quart de finale. Mm-hmm. système de jeu moo ko nax waaw parce que premier match bi moom yéegalu sax ngooñ wax dëgg kenn amul yaakaar départ gaynde arrivé mbuus waaye bi yoon départ mbuus lañ def yàlla lañ def arrivé gaynde donc yàlla nañ yàlla suturaal ah. mais yéen yéen a may ñooñu doole gis nga ñooñu mm-hmm. il ne faut pas arrêter il faut arrêter aussi mm-hmm. de faire la promotion dañaa de la médiocrité mm-hmm. euh, même wala bu ngeen leen dee wane ngeen def ko genre boole ko ci euh, diver diversion maanaam yooyu bu ngeen ko dee teg def leen ko saaru théâtre parce que c'est théâtre. ñu jàppee leen ay comédie ñu jàpp merci même boo ko dee teg teg ko ci façon comédie. ëpp naa def mais ñooñu boo leen dee invité. am na ci ñu am xam-xam def ko lu sérieux da ngay yow si boppam sa ligne éditoriale boo moytuwul ngay yàq. am na ñu am xam-xam déglu ma rek parce que invité nit muy natt asaka mbay mu ñoragul. fit mënu koo gën a rek Latta <laughs> Asaka mbay bu jorogul kooku perte na bu yàgg. <laughs> billaay perte na. <laughs> jii na ngeen def nag. voilà maa ngi sëñ ngay def waay non mais mais li ma jaaxal mooy. da ngay dama laaj ci gaynde yi pareegu ma dama leen di ñaax. ci équipe nationale yi équipe nationale yi. Hmm. dégg naa sax bu ñu waxee gaynde ñaan pàcc àll la jëm Sénégal dañoo neex. Hmm. donc li ma la waxal rek mooy. Hmm. nañ gëm résultat. dëgg la Sénégalais yi dañoo gëm résultat. gis nga ñi leen di taggee tey bu ñu amee safaan noonu lañ leen di xase mhm. ñoom tamit nañ am mental ndax nekk sénégalais te amoo mental dafa metti de. dëgg la doo bokk ci réew mi sax. boo amul mental de fer. fi bokk. doo dox doo da ngay da ngay doo génn sa kër. parce que dañu mën a critiquer nit. Mhm. dañu mën a stigmatiser nit. Mhm. dañu mën a weer nit. duñ la may dara ci chance mën ngaa def dix jëf yu baax def benn bu bon ñu jugé ci boobu. jili yaa ngi nii ñi lay félicité yëpp ba nga delee liggéey ba tey yaa ngi rafetal. mais gis nga bu ñu gisoon sa benn vidéo wala benn nit wax ci yow lu ñaaw. nga gis ñu commencé la juger. te pourtant sa dund yëpp lu rafet la nga doon def te nit matul. l'homme est loin de la perfection nañu may di juger nit ci ay fait. ñun ñii ñëpp am na loo xam ne mu ngi nëbb bu feeñoon ñu juger ñu. wallaay dëgg mais nit mënul dund si dundam yëpp di def lu rafet benn jour mu am erreur yow constaté woo dëgg la wala dëgg sax commencé nga koo ah <coughs> ñoom ñëpp nii lañ mel commencé wax te yow résultat maanaam information boobu gëstuwoo ko sax ba xam ne c'est fiable ou pas kon li ma leen di wax mooy nañu bañ a gëm mystique bi. gaynde yi non jori waaw buñ gëm loolu. Mm-hmm. ñooñu dañ ay charlatan lañu. ñooñu est-ce xam nañ mystique. dama lay wax rek même même fédération bi sax am na ci ñoo xam ne dañuy bëgg a gagné marché boobu. Mm-hmm. gagné ay sëriñ. say la. <laughs> xam naa fédération ak ay sëriñ. Mm-hmm. bëgg di gagné marché bi di lekk xaalisu askan bi sëriñ yi di naxe ñoom ñuy naxe. léegi ñoom nañ bañ a focaliser wu ci loolu ñu moytu tamit di jël ay sëriñ naan nangam déedéet bal bi boo ko tegee. Mm. football tànk loxo nopp bakkan baat mbër jour yëpp loolu lañ am. Mm-hmm. vérité du terrain moo am solo résultat bi waykat yi nañu way sëriñ yi nañ wax mais ñoom nañ am mental suñ duggee ci terrain bi nañ xam ne lii dëgg mooy li terrain bi di joxe. est que yaa ngi may dégg. bu baax buñ tegee penalty yi ay juróom-ñaari sëñ Fallou sëñ Fallou dëkkam bee ñu fay tere football. Mm-hmm. sëñ Saliou jëndee stade di ko def jumaa mm-hmm. ñaata balu jàmbur la fa lañ fa la war kii dëgg euh, safiyatul almaan nangu. Mhm. wala kooku soo déggee piraat yi naan juróom-ñaar sëñ Fallou saa yi sëñ Fallou folu fowlul. Mhm. kon impact yooyu la dindi suñu xel. laabe suñu cerveau génnee ci futilité yeeg banalité yi. Mhm. ñu jëm faire face au monde faire face au résultat gagné coupe indi ko la amul leneen. jom fulla fayda jom fulla fayda déedéet affronter la vie affronter résultat bi indi ko parce que la récompense est au de l'effort kenn du. góob loo bayul nee naa la su doon mystique wala ay tànnale mooy tax Afrique am Sénégal Afrique avancé na gisal dama ne la.